Savon la main vous offre votre série Maîtresse d'un homme marié. Savon la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Sénéguinja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Séni by Sénéguinja pour l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Uniparco Cosmétique, vivez votre beauté, exprimez votre différence.

Jabba.sn, votre boutique en ligne. Avec Jabba, bénéficiez d'un large choix de produits et de services au meilleur prix. defal sa chorégraphie si nous mu dàkkee daal di si sa bal ci siwo Sénac le si ci cette vidéo avec hashtag Sénégal en couleur. yes alors champion. dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de TV 100 pour Malako, xibaar maa la ko télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. events S2 dal mooy téléphone bi xew mën ngeen ko am nag ci bépp redistributeur events VDN Tech, votre réseau d'abribus, en partenariat avec Dakar Demdic et Sétude, VDN Tech s'investit au quotidien dans un projet d'abribus innovant dédié à la vie de la communauté. VDN Tech pour vous, avec vous. Mangalis Management Group avec les hôtels Noum, Sim, Yas. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Nigoura Music Group, leader dans la production musicale. Bétouré, Gorbatchev. Sunushopping.com, le marché digital qui vous simplifie la vie. gis nga ko fula jigéen romb ndaanaan romb na la ndax xool nga ko loo gis li mu sol wala yow li ci xolam seen nga ko ni mu mel wala li ko sonnal yow moom nga yëg jigéen boo gis ni muy noppee noonu lay muñee jigéen boo gis dajee nga yow ak àdduna ah, li mu bëgg moom la xam ba jam ci suba ba léegi ma tok di xaar rek nga ni do pare legi man lan la wone def di top ci sa rythme rek yow xala xamone dama yore liggéeyu jambour li lepp pour lan li yepp ya ci duggal sa bop yow nak sa nekku ci moo def choix wam kay waaye dugal na ci boppam lëndëm boo xamante ne moom sax xamu ko Jalika, tu es forte. Dalanda, tu es forte et belle. il n'y a que toi pour décider de ce que tu veux dans ta vie. Personne d'autre. Et tu n'accepteras pas qu'on te dise comment faire les choses. Après tout, cette bataille, c'est la tienne. tayru Bob ba tey maa ngi lay woo la li du jam li ma bëgg xam mooy li yépp pour lan ak lu nit digal wala bëggal yow rek ya def sa choix lëndëm bi nga bëgg nekk danga nga wara rayante ba def ko leer waro bay waro tay ba téye sa ndam hum, Tahirou tu es fort il n'y a que toi pour décider de ce que tu veux pour ta vie et personne d'autre ne le fera et tu n'accepteras pas que quelqu'un te dise comment faire les choses. En tout cas, après tout, cette bataille, c'est la tienne. as c'est mon message def ma signe j'espère que tu vas bien..! jàmm jaaxle na la Yalla Sam, waa jàng. ana soble. tooga ma ne tooga waaye xoolu. ñab ñabal naa ci oto bi ba pare xam nga lu ma bëgg nga defal ma rouge à lèvres bu tàkk. dëgg ndax xale yi lan la PM Ndiaye la ñuy wër. tenue bu noir bu toj lay sol. ana conducteur bi gisuma ko. ba tey baax na. lii nag du lu may toléré. retard yi ngay répété bari na torop. sama plateau dangay respecté heure mënoo ko ñu xool beneen solution bu ñuy def. damay à lire bu deux boutiques à faire tourner yoré sama kër du man makoy koy man sama plateau la géré la la yow la la soit dañuy heure bi wala ñu xol neneen def. mané bul xalaatuma ko duma ko def gis nga bi heure fi lañ koy bayyi parce que suma ma ba paré damay dem jëli sama nek mom la Lalla plateau dans deux minutes. déglu ma que ça soit la dernière fois.

Gina, tu peux y aller, hein Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de t'appeler. Y aller et te laisser seule ici <laughs> Déjà, je suis loin et vraiment très loin d'accoucher. Et puis, tu ne vas pas me suivre partout pendant toute ma grossesse. C'est vraiment pas drôle, hein ne me donne pas envie d'accoucher là, là, maintenant. Hmm, Dalanda. oui, mais tu sais, euh, on ne peut pas continuer ainsi. Il faut qu'on parle du sujet que tu évites. Écoute, ce n'est ni le lieu ni le moment. J'en parlerai quand je voudrais. Mais Dalanda, tu ne peux pas continuer à fuir ainsi. Mais vraiment, tu t'es tué en fait. le info. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne suis ni la première, ni la dernière à qui ça arrive, malheureusement. Mais pour l'instant, mes priorités, elles sont ailleurs. C'est vrai, Dalanda. Tes priorités, elles sont vraiment ailleurs. Mais mon nerf, mon nakari, là, il doit faire un problème pour ramener dans le cas où tu ne me gagnes gawe. D'accord, là, là, là, mon jour, elle. Dalanda, demain ça, pour moi, le boss était bossé, t'as fait mener. Ni Jack, qu'on a eu là, amène le là. Écoute-moi bien, j'ai rien à me reprocher. Et d'ailleurs, qui s'est mis dans la merde dans tout ça Bonjour. Hi, bonjour.

<laughs> Arrête de te moquer d'elle. Laisse-lui du temps, ça va lui passer tout ça. J'ai faim, non Oui, très faim d'ailleurs. qu'est-ce que tu as amené dans tout ça ah, je sens Ok. Bon, c'est mon jour déjà. C'est bon Oui. Je t'attends Oui. Da. Je t'aime. comme tu peux le constater, ça n'a pas marché. J'en ai marre d'essayer de la pâter, mais en vain. Paie-moi mon argent et casse-toi. Essaye ou attends. Mon bañul mais tu es folle ou quoi ça fait des mois que j'essaie de le draguer. j'ai tout fait je le chauffe mais rien ce mec c'est de la glace paie-moi mon argent et casse-toi. Argent facile. Mais ce mec n'est pas facile à voir. Bonne chance. Est-ce que tu sais que tu es une super bonne actrice Heureusement que je ne me suis pas fait avoir. Je choisis toujours ceux qui savent bien payer. En parlant de ça... En tout cas, prenez soin de votre cul. Ils en ont après vous et ils ne sont pas prêts de vous lâcher. tu sais quoi je suis partout et nulle part à la fois laisse-les essayer xol la nga may neex sama xol bi day ma nga ma wax la. li may dund parce que tu es ma rose au milieu de l'oasis. qui demande son soleil. un tout petit rayon de soleil pour éclairer son cœur son âme. et son maître. kontaan naa. jëlal. yaa ma wax ni yëpp. damay naa ni géej de. Ah, xanaa ni ñaar a koy bokk. dënd yi sax laa koy def. ak nu mu xorom nii. sàpp li xorom sax. ba mu saf sàpp. mu saf sàpp. nga naan génn wàll gi ma naan génn wàll gi. rek nag muy noonu. Alaaji sama xol bi dafa fees su nekk nii toogal. waaye yow gis nga. man Aminta Fall lii moo tax man xuloo moom bu dégg bëccëg moom dina fa lay reese ba léegi kenn gisu ko. xool ko xool ko mu rab rab bi nii. ah maa ngi ne ah. baal ma jooy jégalu xam nga nag bu may ñëw nag foog ma cappa cappal tuuti. dégg nga def fekk fii loo si cappa cappal. ah il le nag toi aussi ci la bokk. waa Diagne ana kaani gi. ma xal laa dinaa ko fàtte fàtte ti ka dama laa xaar ba sonn.

Diagne ya, yow tamit sang bu melni ni ku ko yor dang koy tegal <laughs> ya nak yow tamit dama koy keuf de jël ko de. yow da nga bari kaf. kafuma de. da nga yaakar ni damay kaf yow sax nak Diagne da nga waro ñëw nak ñu wujje ma ak yow. mu xam nga man fële dama wéet. Aminta fal yow waaye da nga yaakar ma dama regalo ji dama ne man suma ko nangoon sax biddewu xol du ko nangu xolal suma ko teggulon jigen gisul kenn ko dul man. biddew loo wax xam naa ne daal ma ci jinjaar jooyu jàll bàyyi ma jottali ko nag yow tam xanaa li ma la wax da laa tiital bu dee jar lii yëpp jinjaar bi man la gën a jege xaaral na waa <laughs> <laughs> la nga def xaaral sax man ma xoolal la nga naan ko am beneen yoon naa la defaral ci njëriñ indil la ko dégg bu boobaa nga comparer comme dama bëgg a wujjeek moom nga xool nag ban moo dàq. Votre série revient après la pub. wetti gis bokk ci. mayonnaise chef Aïda rek. ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew. yaay chef. Laza, la sénégalaise de l'automobile, votre concessionnaire représentant de grandes marques au Sénégal depuis 40 ans. Autorent, la référence qualité dans la location de voitures au Sénégal. avant. yow triangle. yaa ngi rek. jeune. ma lay woo doo ma jël. téléphone je te connais Pour man xam je t'ai manqué. Quand suis gars comment elle va. écoute elle va bien. elle se porte comme un charme. massage ça lui a fait du bien avec bébé yi. toppatoo ah te nag moo war mai turun turandoo Jika daal lo nabo ba tuddee la doom. waaw oui man mën naa la woon lu je

La la la la la la la. Super, c'est très bien ça chérie. xoolal ma ngi ci souf, ci auto bi de nga. papa bul dem de. Wa ma ngi xar maman ba mu ñëw bi buntu bi. sois sage de. nga toppatoo ce petit frère.

Tu aimes ça, hein Quoi Jouer le rôle du toutou. Il suffit que Cher t'appelle pour que tu cours dans tous les sens. Mais il te tient quelque part Tu aimes te montrer faible vis-à-vis de lui Yo, là comprendre. Cher, c'est mon frère. Y n'y beaucoup d'aide, beaucoup Toi, tu as à cœur de laisser un membre de ta famille dans la merde Hein Je n'ai pas une famille toxique moi. Et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, mais Cher est une grande personne. Ah oui, là il peut avoir besoin de toi. Mais vois-tu, quand il s'agit de te faire confiance par rapport à la direction de l'entreprise, pourtant il l'a fait pour Aki, qui par ailleurs a foutu un bordel monstrueux avant de s'enfuir. Mais pour ces petits problèmes, il appelle qui Quelle ta réponse xam nga la moo gën un soof ah seytaane bu ne ay laafam neexut a xàmme yow fekkee sama famille nga bëgg a tas nga ci. mais vous êtes con ou quoi parce que vous ne pourriez pas regarder devant vous. parlez-moi poliment et doucement. sinon quoi. sinon je nga nous ñu sëñ bi kii ci man la sama sport. tu ne touches plus. Hey eh, yo, donne une nit. Hum. Yo, ce qui? am na fit ne tu dois pas t'ennuyer mon gros. oui moi..! bu mais je te vois souvent t'entraîner là moi aussi je me présente Lai mais on m'appelle Caméléon enchanté coach de développement personnel Lolo mooy lan bas de ton muscle mais may gis àndul ak forme non en fait j'aide les gens à mieux s'imposer vu qu'ils nga àndal un naa ni ñu ko soxla yaa gis kii maa ngi à aller retour te yow sax maa mais bon je prends la carte quand même ji gëmewuma sax ñëwam bi ah. dama koo bëgg sama xol sama ay yow billaahi ndeysaan ba pare xam nga lu mu nekk si ma mën a sañ si waaw loolu moom i fan la ñëw waaye waaw kii lu mu fii def. kan. borom coow lu bari lii. kii maa ko jël pour mu animer ñu sunu tour bi. kon da yow yëgoo xew xanaa. ah ki nga xamante ni ca ngénte Makodd. waaw. moo daroon ex jabaru cheikh bi. ànd ak moom ñëw rek pour yàq ngénte bi. te fi nga koy gis nii aawoo rek la bañ. kii ni ma mhm. ko jéppee. comme aawoo rek la bañ nag day génn léegi. jaru ko bàyyi ko fii ndax xam naa ne mi ngi xaritoog Marème ba tey. Mhm. na riigu wut lu mu dem netali ci ndax man nëbbuma dara ay ko mu tok man sama xarit lu ma gisee tay amul ma jax tas gëna rafet gëna jongoma gëna a dir yanki ha cheikh dal sani na loxo ay kan moy ndeyam nag mu dakk bi je ëpp na ay la la la ñëw na kenn du yaw jigéen du mën góor a ngi noonu sa bàyyi daan dagg bu mu gàccee ci ndakaaru titre foncier mu dagg lépp mu dagg nii nga mën a mel man xamoon naa ne tuuru grande dame yi ngay bokk aka yaa am classe aka bëgg bopp ku sa yaay meloon yaayam doom ja yaa defal lu la neex yaa ngi tàq nag ba yàq sama géej kenn day yow ci mën réew jéggal lool merci Massa laay gar mi nga def maa ngi fii baal ma de xam nga liggéey rek moo tax bi tardé waaye mu ngi nii xam nga ñun dañuy daw rek ndax bu nu waaw rek ma dem fili dem jam. daxit bii ñu rii ci ci suba def ci liñ ci def yëpp waaw ah, waaw ñeme ma ni ee eh, xoolal ku bëgg ku nga dem dakhin bi ben plat bon doon ñu bokk ko ah. ku mën daal nga tok ku mu nga dem ku yakam ti yakam li daal lañ ci bëggo natt bi nak li ci dess bareetul waye tay nak naan na Pierre Ndiaye mo gennu i lolo ne sigel la ma jakk ma wax la ñaari ba man xam madara, namuma dara. loolu leer na te it ma. ah ndax nekkuma ci dekk bi di taxawalu di toltolaan di dajale yef yi pour ñew nat ci arrivé ma en retard. man mi namuma dara man la la PM jaay ba taxna na gis nga nat bi ma teggi tay dama len koy baye ngeen jox ko sama benen rak bu ko soxla wala bok ñi arrivé en retard baye na len ko. kon bi ma gis grand dame bëgg seen bopp. ah cëm doom li ñu doon xaar soo ba tey mu ngi soog a agsi. Ah, fi lay jënd. ah lii nag mooy doomu nday lii daal mooy doomu nday dootul miti. dootul miti dootul miti. fili miti tuuti bi teg na ci ah. doy na laa wax xam nga lu ma bëgg yow nga keppal ma ko ba ñu laaj la te nga yam ci sa liggéey li la fi indi mooy animé gis nga fii doomu day dafay jeex jeex na fi bu yàgg waaw na ko ah, kepp te bu mu fi waxaat ah man na mënuma koo kepp ndax man lii mooy sama liggéey mbasa may ma tuuti dégg loolu sama géer déeru la yaa ngi jóg di bu baax moom waay te pour ngi nii di egg si ndànk waaw waaw mais yéen ndeke toog bi day fay ah, ah man na fay xam nga lu ma bëgg garmi man damay ñew dem gis nga natt bi dajale ko bam mu baax na fekk ci sama. deggal sama geer gi ak am jom. legi nak limay defante ak yeen waaw waaw. mu ngi ni ki la len di may ngeen pass jënd ci boisson seddal seen xol du non deggal lool ñaar fukki junni lañu jox. ñaar fukki junni lañu jox. cent francs lañu jox. cent francs la jox. ñaar fukki junni la jox. waaw lan la loo la yow sa doom de. Hmm. kii de yaa gën a xam ne du fi toog ndax gàccee ko doon bëgg a rey topp ma naan naa tas sama sëy naa tas sama sëy faalew ma ko mu jaaree fa mere ma tey nag sëy bi ma jaaree fa bàyyi à vie man man maa yow de may nga gaynde yàpp ba ci la fii nii nga xam ne xam na sa biir xam sa biti xam fii metti xam rukkurukaat yi nouvelle madame Diagne ngay am foofu loolu du ma sant ci àddina Cheikh Diagne

Je voulais juste te dire que je suis bien arrivée. Fais signe dès que t'as un moment, s'il te plaît. Tu me manques déjà. Bisous, je t'aime. Yo, yo, yo, Le mot tax nga ñàkk jom Yo, le mot le jaral lii ni daal nga bëgg jappé sa aduna di dem di rek te liñu ñu lay defloo dara dara déranger wu la ci yow yaa ñàkk xam sa valeur yow ya ñak xam yaay kan man dama jur doom bu jógee ci avion daanu ci saret waa Jalika lan moo la jaral lii nga nekkee lan moo la jaral lii laa wax yow rusoo di ndamoo takk suuf yow di jàppale sa jëkkër muy nax beneen jigéen yow amoo sax jom amoo rusukaay ñu ne déet na waay ngay ndamu lu ne nga dugg ca bu dee man maa la jur lu la neex doo ko ci mës a am ci kër àdduna te yaa ko gën a xam waaye nañ dem. loo bëgg ma tas sëy bi. waaw duma ko def tey duma ko def ëllëg sëy bi dama koy sëy ba mu neex maa nangu doon takk suuf teyru te dama koy assumer damay génn roñu roñu dem roñu ñëw dund sama fii pleinement te dara lu ko tere maa ay bëccëg te dara dérangé wu ma ci. yaa ngi yàq sama àdduna xam naa ne nag yëgoo ko waaye léegi ma dee man man léegi ma dee. lan nga bëgg man jigéen laa dafa am lu ma soxla te am naa jëkkër bu ma koy jox di ma toppatoo ni ma neexee duma dem di ko wuti ji feneen di toltolaan am na fi ñoo xam ne gisuñu seen jëkkër teguñu ko ba tegu leen loxo et pourtant ñu ngi toog di sëy seen sëy tranquillement léegi man ma tas sama bos pour lan ay waxi nit du ko def kii baax na bëgg na ma yor na ma yéen na ma te yërëm na ma bu la yeboo nga ubbi sa xol bi te xam ne fasuma yéene tas sëy bi mu neex di la naqari ni ngay gérer sa àddina def nga lu la neex. xas d'accord gis nga nag tey jii mu yow ak Tahirou bu ñàkk amee ku ne xam na place am. Savon la main vous a offert votre série Maîtresse d'un homme marié. Savons la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. gis nga ko fu la jigéen romb ndaanaan romb na la ndax xool nga ko